madame jaw Merry Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. lan mooy apatride ci wolof. Euh, ci wolof apatride mooy nit koo xamante ni benn réew euh, mënul wax ni yow mii suñu doom nga. Hmm. ndax am na fii Sénégal. par exemple fii Sénégal am na ay nit yoo xamante ni amuñu kayit yu mën a wane ni ay doomu Sénégal lañu hmm. te bu ñu amul kayitu Sénégal amuñu kayitu beneen réew. kon ñooñu ay apatrides lañ leen di woowee amuñu nag ay chiffres yu officiels yoo xamante ni mun nañ la ko jox fii mu toll nii parce que il faut loolu dafa laaj ay enquêtes yu hmm. sori hmm. yooyu la ñu amul ay chiffres yu officiels mais du ñàkk. Hmm. dëkk boo gis dina am ñoo xamante ni amuñu kayit te loolu mooy indi apatride bi ñuy wax. yan mooy kayit yi nga xam ne ku ko amut apatride nga. li nga war a njëkk am mooy acte de naissance. boo juddoo te loolu je pense que droit de l'homme yi ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy kaas ñu ngi koy waxtaanee nit xale bu juddoo li ñu war a njëkk def mooy déclarer ko ndax mu am ak de bu ëllëgee mu mun a am carte d'identité bu ko ko at yi mayee certificat de nationalité tamit boo ko amee nekkuloo ci cas boobu mais bu fekkee ni amuloo benn kayit bu mun a wax yow mii sa tur sa sant ku la jur fan nga juddoo bu boobaa apatride leen lay mujj woowee. man awma certificat de nationalité ndax sénégalais laa. si sénégalais nga bu fekkee ne am nga acte de naissance bu prouver ni yow fii nga juddoo prouver sa papa ak sa yaay te ñoom ñëpp ñu nekk ay doomu Sénégal kon mun nañ la bañ a laaj certificat de nationalité mais boo seetloo fii si réew Sénégal am na ñoo xamante ni bu ñu amee ay sant yu meloon ni Fall Diop Ndiaye. rek ñu daal di bu ñu bëggee renouveler seen xam nga li ma wax bu ñu bëggee renouveler seen passeport wala seen kii ñu sant ay Prera ay Bakourine ñi nga xamante ni si sud bi wala au nord dañ leen di laaj certificat de nationalité pour mun a dëggal parce que di nga gis ñu am carte d'identité mais ça veut pas dire ay doomu Sénégal lañu te dañu nekk sénégalais ba pare ci seen biir réew mel ni dañ leen fii xatal wala. non du xatal du xatal mais ñoom ñoo mënul indi preuve ni que ñoom ñii ay doomu Sénégal lañu. Mm-hmm. par exemple tey boo bëggoon tukki boo demee aéroport xam nga dinañ la laaj passeport mënoon ne ñoo rek taxaw ne doomu Sénégal laa ñu bàyyi la nga dem. Mm-hmm. il faut nga wane ay kayit yu leer léegi yow bala ngay jot ci passeport boobu dafa am kayit yooy wane bu fekkee ne amuloo benn kayit mënoo tukki mënoo jàngi école mënoo faju parce que mm-hmm. la yónnee woon wari sa carte mais bu fekkee fii nga juddoo. te sa baay ak sa yaay. ñoom dëkkuñ ci réew mi. ca Benin lañ jógee wala Burkina wala États-Unis ndax doo sénégalais. loo gis mi ngi dépendre ci loi wu dëkk bi. dëkk bu nekk da ngay établir sa loi kenn amul droit wu ñëw ne la sa loi bi baaxul dindi ko wala dugalal li ci loi bi dëkk boo gis rek ñoom ñooy tànn seen loi wu bopp mais bu fekkee ni loi wu Sénégal dafa ne pour nga am kayitu Sénégal il faut nga juddoo Sénégal sa papa wala sa yaay nekk doomu Sénégal bu boobaa bu fekkee ni remplir wuloo condition yooyu doo mun a am kayit yi hmm. di nga gis ñu juddu beneen dëkk mais parce que seen papa wala seen yaay ay doomu Sénégal lañu dañ leen di jox nationalité automatiquement bu dee dem nga déclarer ko ambassade wala leneen. Hmm. ñun suñu loi lu wax. yow xamuloo suñu loi suñu loi de nationalité dañu war a suñu bopp parce que mm. loi de nationalité bi ñu ngi ko changé daaw ci mois de juillet bi bu njëkk ba loi bi daawul woon autoriser jigéen yi ñu jox seen doom wala seen jëkkër seen nationalité xam nga loolu mën na indi problème parce que bu fekkee ni man gis naa ay réfugiés tey yoo xamante ni seen papa day nekk dëkk X seen yaay nekk ay doomu Sénégal ñu judd fii ci biir Sénégal mais mun ñu am kayit hmm. kayitu réfugié la am parce seen yaay mënu leen woon transmettre seen nationalité mais alhamdulilah léegi changé nañu loi léegi ku juddoo Sénégal fii te amoo kayitu juddu hmm. juddoo fi sa yaay juddoo fi sa baay juddoo fi hmm. ndax sénégalais nga ah ñu ngi ñëwaat ci li ma la wax bu fekkee ni mënuloo ko findeel amuloo dara lu ko wane amoo kayitu juddu waaw amoo dara ah. amoo mi nga loolu taxul nga nga nekk doomu Sénégal il faut nga mën a wane bu dul yow sa papa wala sa yaay wane ni yow mii fii nga juddoo tel bis tel waxtu. Mhm. yéen ci waa bànqaasu mbootaayu xeet bi nga xam ne mooy toppatoo way daw làqu yi. Mhm. lan ngeen nekk di defal ñooñu nga xamante ne nii dañoo jàpp ni réew yañ nekk dëkkuñ fa. ñun suñu premier liggéey mooy nit ñooñu ci seen bopp ñu xam seen situation parce que am na ñoo xamante ni xamuñu ko dara de par exemple dañuy war a dem tukki fenn man dégg naa kuñ ma ne dañ ko may billet Màkka war a dem. ñëw taxaw ñu ne ko ansee kayit mu ne amuma kayit moom si lay soog a xam ne apatride la yaa ngi xoolool loolu conséquence bi muy am si nit lool mooy suñu premier liggéey sensibiliser nit ñi ñoom si seen bopp ñu baña dugal seen bopp si situation boobu parce que bu fekkee ni yow tey am nga doom nga dem déclarer ko xam nga doo mos am problème boobu mais dafa am ñu xaw ma sàggan la foog naa ñàkk xam la ñàkk xam moo gën a bëri te ñuy am doom duñ ko déclarer ñu toog lu yàgg ñu bëgg a ñëw tey déclarer xam nga dafay jafe madame Fall maa ngi lay jaajëfal maa ngi lay jaajëfal bu baax